Senclic yéen ñi abonné gul abonné gaaw ak activé cloche notification bi ngir ngeen di am lépp lu fi bàyyi ko jàngin jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen ziar bu baax a baax rawatina waa kër Serigne Touba ak waa kër Maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baal di wax ne Senclic TV di seen bi nga xamante ne si moom la ñëpp di suivre jamono ñu toll nii di ne Senclic TV ubbi benn page bu bees bu ñuy wax en émission cant gi incha allah rabbi nekk ak seen mbokk Serigne Aliou Ndiaye moo leen koy defal di woo ëttu mbooram ëttu kër diine yëpp ak ku mu mën a doon rawatina jànkar xasida yi ak waa kër Maam Cheikh Ibrahima Fall Sikurla laaj naka ngeen def ba dugg si sikrullah dinañ laaj xam émission na ñu bari ñoo xam ne nii sikrullah dinañ ne émission cant gi ak seen clic TV yi di wax ne képp koo xam ne bëgg nga see dugg wala nga bëgg see jot da ngay tapé numéro ma lay jox da def 76 785 26 23 wala bu ko incha allah di nga def émission cant gi ñu waxtaanee kan la Serigne Touba Cheikh Ahmad Baba Khadim Rassoul ak ak lu mu a Touba ñu bari bari xamuñu ko Cheikh Ibrahima ñu bari xamuñu ko bëgg a leer tamit baatu sikrullah lan la dina la laaj yow tamit lan mooy baatu sikrullah nga wax ñu ko ndax sikrullah dafa doon loo xam ne baat bu dis la ndax sëriñ bi dégg naa ñu ne dafa wax ne baatu sikrullah boo koy sikkar da ngay kawee suñu a xam baatu sikrullah ak ñi xam ñoo koy sikkar lan la ñuy nan la ñuy dund ak seen clic TV yi di wax ne ñu def foofu sunu loxo incha allah bi di ñaareel mboolem kër ëttu kër diine yëpp suñu mboon defee jàmm di ñaan ci mbas ne moo di coronavirus suñu borom ko fi